di leen sant di leen nuyu fan yii ñu gis nga ni def nañ benn communiqué pour wax ni dañuy génn ci coalition bi nga xam ni mooy taxawu Sénégal li ko waral nag mooy dama jàpp ni man sama position bu dem moo war nekk sama position bu tey Nous def coalition Yewwi Askan pour ñu woon dañu bëgg pour liggéeyal Sénégal ñu ni local yi dañuy ànd bu ñu àndee ci local yi bu ñu ba ci ñu àndaat bu avec la même vision et la même cohérence politique man suis président. demee si présidentielle bi fa fa Khalifa Sall biñu démé élection présidentielle jeex yalla dogal ñu fal ki di président Bassirou Diomaye fay ñu gis ni taxaway ba nga nañ ko au départ ci coalition ba dafa mel mel ni vision ba nga xam ni moo nekkoon vision de départ tam boole woon nu nekkatul benn ma gis ni man loolu bokkul sama ak ay conviction parce que man bu ma nekkee ci dara conviction moo tax ma fay nekk gis-gis moo tax ma fay nekk waaye doo foo xëyee rek jël moo yóbbu ma fa la fa la neex dama d'accord ni ñun dañu bëggoon changer li fi nekk dama d'accord ni dañu bëgg développer Sénégal tey bu yàlla dogalee kenn ci ñun mu jiitu ñu ñëw dañu la war a laxasaayu pour dimbali ko mu réussir loolu moo tax lii moo gis tey ci taxawu Sénégal ma gis ni ñii ñu àndal ñooñu lañ doon xulwal démb di xeex ak ñoom démb pour lii Sénégal war a changer ñoom ñu taxawal tem ni loolu du am ma gis taxawaay bi mu nekk taxawaay boo xam ni dafa mel ni

pour ñu réussir ko nag demuma ci kenn di wax ak moom ci président de la république j'avais cette possibilité mënoon na jéem a premier ministre j'avais cette possibilité mënoon na sax waxtan ak les responsables au niveau local mais waxuma ci kenn c'est une décision bo xam dama ko jël avec conviction taguma ci kenn gannaaw ba ma waxtaan ak sama ay xarit ak sama àndandoo xaaruma ci dara defuma ko ce n'est pas une alliance d'intérêt je le fais dans l'intérêt commun dama ko def pour li nga xam ni moom la nit ñi am ci ñom ñu mën ko réussir parce que Sénégal fu mu ni nii lenn rek la soxla ay doomam yu góor yi ak yu jigéen yi ñu dajaloo taxaw laxasaayu pour dëkk bi développé wu dañoo sonn ci gégé politique dañoo sonn ci ay xuloo et positionnement politique nous c'est le développement de ce pays là nous, sommes tous rôle sans calcul sans intérêt ni dama la coalition présidentielle nous avons une majorité confortable bu avons ko que Nous observer

Lui peut-être corriger avec des solutions nous corriger mais en donnant des solutions mais pas parce que intéressé positionnement politique. politique parce que qui a le il est là pour cinq ans Si nous majorité il sera là pour cinq ans nous ko pour développer ce Sénégal là dans l'intérêt tous. loolu moo nekkoon euh, déclaration bi.